garaaw a xam. lu mel ne. paa bi tiit bi jaay cuuraay biir marché xam nga ko. Baye Jalla. Baye daal kam yoo cuuraay laa wax de. moo saaram dugg ci baaraam bu mag bi ba jeex tàkk. gisoo feeraay gisoo doomu gawee gisoo moor gisoo blessé. paa bi tiit na. sax damaa war a organiser ràcc bu saf kër gi. def sama mbaxal waaw dëkk na la bi wax ni nit invité samay xaj ñu ñëw waaw. wér koor gi moom dafa xaw naa naaj trop trop trop sama côté. ko Gadiaga mii. Ah. xam nga ne lii dootuma koo bàyyi waay. ah li ëpp nii rek nga def ah, man damaa damay dégg gone yi naan tëj saison tëj saison. musuma xam ne lii mooy tëj saison lii mooy tëj saison nag. day gën a saf. xam nga nag ci weeru koor lañ ah, nekk nag. Eh, bàyyi la séeral ko rek bàyyi ma yow bàyyi ma. bàyyi ma la séeral eh, ay cër raw raw ay cër cër cër. eh baa ko takku moom. eh eh eh dooleel eh, waay eh non la waay cër raw raw ay cër cër cër. ba sax ba dugg sax. ci maa yor yow a ak bu jàppee sa gardien sa bopp gardien bu mu ëpp ak loo doon doon gardien war maa sa bopp war maa la ki si nga xam ne nit la duñu sañseel waaye sañse pour lan man xale bi bëgg na ma kay ba invité ma ndog ma invité la doom day nañ ndog si rek defal ndànk bu ñu la invité nga sañse xanaa gisoo mën ni ma mel damaa sañse ba kiliñ teg booy bi mën na ma gis tib sama xam nga man damaa amoon na mën laa gis tib ci la non du loolu de c'est que man maa amoon bëgg def ni laaj naa la di lay jël léeg nag jox la sama yaay mu defal ko repose-pied. Ah. sa buntu nekk. booy dugg jël sa tànk di naan ko nii kay nii. Ah. waaw nii di ko fomp. macha allah jël sama baay mee la ko premier cadeau. Ah, te xam nga man damaa baax gis nga sama tubay ji. 790 laa ko jëndee. si cher ci doole li ci gën neex mooy. Hmm. man sama ndigg resol avant la am nii rek. ah kay nii rek. Eh. wal qalbu sama. نحو السماء ah papa Diop tiital nga ma. man de diggante bi ak bitig bi daw naa fi daw yoo xam ne. Ah. bu ma amoon estomac mu yëngatu. nit ku baax na toog yoor yooru koor ñëpp di la xool seen bëri nga génn ak sa col gu bon gi. wala yow lii du ay weer. eh tey sa loxo ma laalaat ngay ñàkk fay la moo ko may boppam bu ma doxate nga may laal ma fóol ba ñàkk fay doo bëgg a dee. waaye ni nga mën a mel ndax xam naa da ngaa gëjoon naa neex li ngay gis nii li may gis ko gën a garaaw de. loo gisati man mi sama nijaay doxaani woon Njaay Jaw. Njaay Jaw. gaare vélo bi ci buntu kër gi. waaw. ndaw si gunge ko ba ci buntu kër gi mu génn taal vélo bi taw bi sóob. waaw. daa fente ndoxu taw yi ba biir këram te tooy. yàlla ji ci bett ndox yi. da koo fente ba ci kër a te tooy. gis neex yow waay waay tàkko tàkko waxal yu bëri yow ku la xooloo ci kaw waa kër gi sa nag nekkal à l'aise per la mi nag eh, eh. Eh, kii lu def mi nan lay toogal nag ah itamit nag gargajaga kër Gajaga Gajaga Malam